À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Baye et Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Amadou Bamba, Dakar. Téléphone Elle réunit chaque année près de 4 millions de disciples dans la ville sainte de Touba. Reportage de Théa Olivier. Aux abords de la grande mosquée mouride de Dakar, Momardiaï explique ne pas avoir peur de fêter le Magal dans la ville de Touba, malgré le coronavirus. Depuis mon naissance, je n'ai jamais vu Magal annulé. On part à Touba pour faire nos prières et nos bénédictions. On Plusieurs personnalités demandent pourtant à l'État de prendre des décisions fermes, quitte à annuler le pèlerinage afin d'éviter la propagation du virus. Mais le dernier mot revient au calife général des Mourides, rappelle Morda Gassila, membre de la confrérie. Personne ne peut interdire les Mourides de célébrer le Magal. Mais la question comment faire le Magal avec euh, cette pandémie, les autorités communautés religieuses sont en train de réfléchir pour que le Magal se passe en prenant en compte la pandémie du covid Le chercheur Sergueï rappelle le poids économique et social du Magal qui le rend compliqué à Le format de l'organisation avec un nombre limité de participants. Une autre de limiter la participation des personnes les plus scénario, ce serait de laisser les gens venir en leur dictant des mesures euh, barrières très strictes. Le ministre sénégalais de l'Intérieur a assuré que les marabouts sont associés aux décisions étatiques, étant donné leur rôle pour la stabilité du pays. Théa Olivier, Dakar, RFI. RFI 10 h ici à Paris, on retrouve tout de suite Guillaume Nodin pour la deuxième partie d'Appel sur l'actualité.